Colack maa ngi lay nuyu di la ziar la nga nuyu mbokk internet yi. waaw Lamine maa ngi lay ziar. Hmm. di nuyu képp kuy seetaan Lutte TV. di nuyu fans Lac de Guiers numéro yëpp di nuyu waa Géejawaay di ziar ñëpp di bëggee ñëpp daal. Mm. bàyyiwuñu kenn. Mm-hmm. di nuyu waa écurie Waalo baax baax. waaw di nuyu coach Max. Mm-hmm. sama papa Mouhamed Père Al Mouhamed Ali Ndiaye. Mm-hmm. DJ. sama copain Moussa ñëpp. waaw gars yi ne ci biir salle bi yëpp maa ngi bëggee ñëpp. bàyyiwuma kenn waaw. ok loolu am na solo yàgg am seen troisième combat bi taxaw na ngeen war a bëri le 4 avril fan nga toll ci waajtaay waaw waajtaay xam nga tey ñun amul dara lu ñu mën a bett ah. nekkoon nañ ci entraînement yi bu yàgg yàlla def na ñu jàppal ñu 4 avril alhamdulilah sant yàlla yàlla teg ma ci ay loxo yoo xamante ne tey bàyyiwuma ci benn bor maa ngi ci liggéey te incha allah ñu ngi ci dernier virage fu mu ne nii ñu ngi ci waajtaay daal li ci des yaa ngi meñcee. waaw ñu ngi meñcee. le 4 avril nekkul date bu la bett. parce wala saison prochaine man amul dara lu may bett ah. amul dara lu may bett parce que chaque jour que jëfee maa ci entraînement yi di liggéey di waaj le 4 avril. Mm-hmm. waaw maa ngi ci entraînement yi daal. kuy maintien mooy ku pare maanaam lag pare na. pare na waaw. physiquement pare naa ci lépp ci mentalement. moralement moralement lépp mystiquement. mystiquement waaw. laajoon dolli rek. Mm-hmm. laajoon naa la ko keroog 2S la combat bi daf mel dafa bàyyi xel mystique bi trop trop trop concentré wu ci bi est que amul lu mu la mën a yàqal ci sa ci sa ci sa ci sa préparation physique. mais Lamine yow ñëw nga gis nga li may daj fii mystique dafa bokk ci làmb ah. mystique dafa bokk ci làmb mais ñëw nga fekk gis nga may entraîné mais man sama lépp entraînement la liggéey rek. Mm-hmm. waaw ku ñàkk jariñu. ku ñaq jariñu. waaw combat bi lan na wute ak combat yi fi jotoon jaar premier combat bi ak deuxième combat bi. waaw wute bi mooy leen la ñàkk xamoon sama adversaire à pour cent mais léegi yàlla def na ne xam nañ ko ñu ngi koy waaj. premier combat bi lan nga ko ëppale woon yow. lu ma ko ëppale woon non ëppale wu ma ko dara lu dul bon préparé nañ li ñu war a préparé suñu combat ñëw nañ taxaw bëre yàlla may kon li bëgg. niil ngeen niiloon. waaw ñu niiloon. moom lan la la ëppale woon ci premier combat bi. ma ëppale wu ci dara amul ci dara lu ma ëppale premier combat bi. metti woon na amateurs yi kontaan nañ xam nañ ne ñun ñii liggéey nañ. jël nañ ay ay ay ay experts ñu ne premier combat bi li ñu jàpp mooy Lac sax moo ëppoon doole ci combat boobu noonu. ci combat boobu. Mm-hmm. waaw am na ñu am gis-gis mën nañu wax lool. yow bi nga jàppante ak moom ci premier combat bi sentir nga ne yaa ko ëppoon doole wala sentir woon lool. waaw xam nga mënuma taxaw ne diw man maa ko doole xam nga la tuutil doomu aadama mais liggéey nañ ñun ñaar ñëpp moom xam na la dëgër lu muy saf man xam naa lu muy saf. Mhm. léegi li ci des nag mooy ñu bàyyi la 4 avril. deuxième combat bi seen deuxième komba waa deuxième combat bëri nañ bëri nañ xam la mu nekkoon combat boo xamante ne ñëpp nangu woon na Lac de Guiers la mbër dëgg la boobu si je me rappelle très bien si la sam papa Moustapha Guèye maa koy nuyu en passage. seen deuxième combat waaw non suñu premier combat premier combat bi la Tafa Gueye yuuxu woon waaw yuuxu woon waaw bi bo mu ñëw jéem a jaay xelu mag moment boo xam nga fougue de jeunesse mooy li may wax rek jàpp ñu ñu nekkoon ci daal waaw. Mm-hmm. Euh, mais yàggatul. Mm. man pour man lu xas ba jàll jàll naa li nekk suñ kanam rek moo ñu ñor fu mu ne mm-hmm. moom mooy jëm nañ ci 4 avril. 4 avril boobu rek moom moo ñor fu ne nii. dafa am lu bari mu la koy wax. Mhm. ba seen deuxième avant ngeen di bëre mooy góoru balaa nga koo yëpp ñam ko. waaw deuxième bi doon na la wax loolu. Ah. troisième combat bi mi ngi répété wax loo wax boobu noonu. Mhm. góor balaa nga koo yëpp ñam ko. ban jàngat nga am ci wax boobu noonu. waaw xam nga ëmm moom dafa dama yaakaar ne moom dafa nekk nit koo xamante dafa mel ni ñun ñaar ñamante wuñu wala xamante wuñu ñun ñaar laale nañ mu nekkoon combat bi métti premier combat bi deuxième combat mu am nu mu fa demee yaa ngi dégg ci laa ko touché bu tuñ bi xar kon donc kooku noonu boo taxee ne eh, góor balaa nga kaa yeb ñam ko danga nga koy wax ki nga xamante ne ñama eh, maanaam mosoo leen laale yéen ñaar mais koo xam ne laale ngeen laalewaat yaa ngi dégg ngeen xamante bu baax. <laughs> bu taxee nag góor ku ko yeb ñam ko koy ay ay reer sax may jàpp. maanaam wax boobu yow moom déggoo ko ça ne me dérange wu ma sax. moom au contraire moom war na xam ne am na client. Hmm? lu leer laa la. client bu mu lekk la fenn. <laughs> bu tëddee sax xam na ne am na ma wax ko ma ñàkk ko wax moom xam na ne combat bi daf ma jaral. lan moo changé ci diggante bi ba mu am client lan moo changé ci Lac de Guiers numéro 2 lan moo nekkoon ci Eumeu Sène te nekkatul ci moom ba nga gëm ni am na client dëgg. waaw xam nga dama koy faral di wax ah, nit ah boo boo amee ñu wéeru sa ginnaaw di la jàppale te yàlla tax sonn say mbir di la teg ay métit mhm. maanaam da ngay jox jëmm yooyu cër sant yàlla nekk nag ay nit yi nga xamante nit yoo xamante ne tey macha allah yàlla am na lu mu leen may ma fonk leen respecté leen trop diis leen sama soxla mooy comme suñ pap Mouhamed Ali Ndiaye coach Max ñi may entraîné ci lépp ah, sur tous les plans mayuñu ma dara ñuy liggéey liggéey yu metti ba man sam bopp man xam naa ne man ñii coono gi ñu may teg nii bëgg ma am ndam rek moom moo tax kon donc jëmm yooyu noonu il faut il faut ñu ñu xormaal leen jox leen cër te maa ngi leen di sant bu baax a baax ci coono parce que c'est pas c'est pas c'est pas maanaam nekkul loo xamante ne tey. Euh, lu lu xam nu ma la ko mën a expliquer pour nga comprendre daal maanaam c'est pas donné à tout le monde ah. que nga am genre nit yu nii ba pare nga gis ñuy bàyyi seen i yitte seen i yitte yëpp ñëw pour sonn say mbir. jóg n'importe quelle heure xam nga la ànd ak yow bàyyi seen njaboot yaa ngi dégg jóg pour lan pour leen rek pour yàlla may la ndam kon donc suy boobu nga xam ne moom lañu am ci man. yàlla na ko yàlla defal yàlla may ñu ndam ñun ñëpp. Hmm. ñu xool nekk suñu kanam. Hmm. maanaam staff bi daal da ko gën a renforcer. waaw gën naa ko renforcer alhamdulilah rabbil alamin euh, dalal lañ sama xel ñu ngi may jox li nga xamante ne tey man manqué woon naa ko ci benn côté bi. Hmm. mais sant yàlla baax a baax. waaw. wax nga ko sànq nga ne seen deuxième combat da nga ko dóor ba tuñ bi xar. dafa mel loolu andi woon na polémique sax seen diggante. kii seen première face à face bi combat bi jour bi mu taxaw. waaw tuñ bi xar na wala tuñ bi xarul. Mm. weddi woon na wax boobu noonu. waaw si. Mm. xam nga dañoo njëkk a bëree maa moom suñu suñu combat bu njëkk ba. waaw mm-hmm. ah, moom defoon lii quoi moom. mu nekkoon combat boo xam man am na loo xamante ne man euh, euh, du ma doomu aadama boo mu defee dara def nga ma ko. xam nga la ni jàppante ñun ñaar xam nga mu sërëxal benn uppercut uppercut bi gaañ ma fi yaa ngi dégg. suñu deuxième combat bi ci laa ko touché moom tamit tuñ bi xar mu ngi naan fii la mais fii fii la tuñ bi fii moom tamit fa ma gaañ laa ko gaañ moom tamit. maam da laa ko mandarga. waaw mandarga ba mu ma jox ba laa ko jox. waaw bosam bosam su ma ko jëlee foog ma xool. waaw waaw boo xoolee suñu premier combat bi sax daf fii ma gaañ ko fii ci bopp. yaa ngi dégg deuxième combat bi ma joxaat ko beneen fii. troisième ñuy xaar troisième bi. troisième combat bi fan nga ko bëgg a gaañ. non c'est pas question de gaañ li ñu amal importance mooy ndam mais dina daj dëgg ci combat bi. dina daj dëgg maanaam dina bëre combat bu mësul bëre. déggu li ma lax dina daj dëgg combat bi combat bu neex la combat boo xamante ne combat bu garaaw lay doon. mais nag moom ay combat njarndeem rek lañ ko gis muy bëre ay njarndeem rek. combat ah, moom bu yàggee neex bu gaawee neex. waa mais yàlla baax na mais combat bi koy conseillé ah cons rek. à ah, l'usure nga ko yóbbu. déggoo li ma la wax combat bi dañ koy cons sama diggante ak moom buñ ci yàqamti dara nag la mu entraîné na ko wane. man li ma entraîné ma wane ko. Mm-hmm. loolu mooy wax ki fu mu ne nii. foog ngeen cons ko xeex xeex ku metti. déggoo li ma la wax moom ci boppam ah la mu entraîné na ko wone mooy yi nga xamante ne moom lay wane ne mu ngi koy entraîné na ko wane bés ba man tam li nekk ci man. ma wane ko. mais cons bëgg nañ sax cons amateurs yi bëgg nañ cons. Ah. say supporters bëgg nañ cons ay supporters am bëgg nañ cons mais bëggu nañ bëgguñu nag taxaw di leebatoo Samba Yaana Ngaan ba ba ba koy def. waaw. bëri. waaw ñaara koy def. lan nga koy sant ci combat bi moom. ci bëgg rek. lu mu ci bëgg rek. waaw. laala na ñamante nañ ma ak moom. ci bëgg rek. bu bëggee bëri. danañ bëri ba ardoise yëngatu. bu bëggee xeex dinañ xeex ba deret tuuru. nga sa bëre ci bëre Eumeu Sène. saa yi Eumeu Sène dàquma bëre lu leer laa la wax dàquma bëre de waaw. dàqu nga xam ne dàquma bëre. lan mooy fooru Eumeu seen du lu ñuy wax fii. non loolu du dara doomu mag la. non loolu du dara doomu mag du si dara mais waxal yow lan nga jàpp ne moom mooy fooru Eumeu Sène. am na loo xamante ne du wax. forum kay nañ bàyyi bañ te ne ko ñu ngi ciy entraîné bu baax waaw. gis nañ ni day bëgg na mbapat mbapat jàppante. kan bëgg na mbapat. waaw ba booba rek bu mu ci bëgg rek ñu jox ko ko mais nañ ko cons rek. cons bi daal ci nga koy woo. cons bi moom il faut mu dal ko. kon foog ngeen teg baraat. non il faut il ñu cons ma ak moom. joxe waaw ba mu jox tàkk. joxe étincelle yi tàkk. incha allah bu neexee yàlla suñu borom. lépp nañ ko bàyyi loxo yi yàlla suñu borom di ñaan yàlla ba 4 avril yàlla may ñu ndam lu rëy waaw loolu la ñaan. jëm jël naa sa sa sa sa manager ma wax ko li ma li ma sànq ci Eumeu Sène. Mhm. ni daanoon na la moom nee nag waalo bañ na waalo bañ na ngeen di andi bi paa. waaw mais c'est normal ah. waaw. c'est waalo bañ. parce que bu waalo bañ na waalo war a bañkat la mës doon. waalo waalo bañkat la mës a doon da ngay xool jigéenu waalo dañoo dajaloo dugg ci benn néeg lan moo leen waral ñu dugg ci benn néeg parce que dañ leen bëggoon def ay jaam jël leen yóbbu leen loolu lañ bëggoon loolu lañ def. Mm-hmm. dugg ci biir néeg am ku ñu génnee koo xam ne mën a nettali histoire bi. ñu taal seen bopp ba néeg ba tàq ba fay ba jeex tàkk loolooy bañkat. Mm-hmm. man loolu moo tax deret waalo bu day daw sama biir yaram bi. te incha allahu rabbi le 4 waalo day bañ. par force te ci kàttanu yàlla ñu ngi ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam. amoo looy ñaan Eumeu seen ci combat bi. ma ko dara amul dara lu ma koy ñaan. loo ko ñaan mu tax ñaan mu taxaw. déggoo lu ma mu taxaw taxaw. amul dara lu ma koy ñaan na wër fii ba l'an 2030. ci ah. kàttanu yàlla. fu mu taxaw da ko dina bëre ah. dina xeex. fu taxaw da ko fay dina daanu. waxaar ko waxaar ko. ma ne la ci kàttanu yàlla. ñaanuma ko dërëm dina bëre. dina xeex. ñaar te dina daanu. ñett incha allah. foo teg loolu. ci li ma liggéey ak ci ñaanu waajur ak ci ñaanu kilifa diine yi may ñaanal ak sama papa yeeg sama yaay yi. da ngaa ak sama mag da ngaa naw sa liggéey ba xeeb bosam. mosuma xeeb liggéeyu nit li mu liggéey moom la concerné moom la concerné man li ma liggéey man moom ak concerné man. man xam naa ne maa ngi liggéey moom nag li mu liggéey moom la concerné mais man li ma liggéey man xam naa ne maa ngi liggéey. côté liggéey bi nga wax. premier combat bi deuxième combat bi troisième combat bi ban la Lac gën a sentir boppam ci côté doole. troisième bi liggéey naa de troisième bi di ngeen ci xam dara. Hmm? di ngeen ci xam dara di ngeen xam ne la dëgër liggéey na. foo mujjee. fu muy mujjee comme. foo mujjee foo mujjee. fan laa mujjee comme. sa dernier combat. ah sa dernier combat. waaw foo mujjee. sama dernier combat fan laa mujjee. Pikine. waaw Pikine laa mujjee. Pikine nga duggaat de. waaw di fa ñaanat yàlla ndam rek. dafa mel ni miin bi ëmma seen miin waa géej waaye da nga ko bëggee miin waa Pikine ndax it ëmma miin na leen trop. waaw ëmma miin nañu ah miin nañu miin na soosey tamit. miin na bépp xeetu ethnie bu nekk biir Casamance. ca la bokk. bokk ci. ah ca la bokk kay. bokk ci. lu tax danga ko cee bëgg a génne. ama seen du seen dëkk Badiana. ama seen du du du kii moom ma fa forcer boppam rek. ah ñu waxante dëgg ah. non amoo fa la dëkk. non moom moo fa forcer boppam nañu waxante ñun ñooy doomu Casase. yéen ñan. waaw ñun ñi. yow. waaw ñun ñooy doomu Casase. ay mbokk nga fa nga taal ko nga ne ko mu làq joolaa ba ba ba kii bi jeex. non ay mbokk nga fa am mu am fay mbokk rek. kan moo fa am ay moom. yow téye la yaa ngi fi. ah je suis là. Ah, déedéet nekkoo fi kay. mais yaayam fa la nekkoon. waaw yaayam yaayam fa la nekk yaayam joolaa la papam lan la. séeréer. ah séeréer. la. soo salaak séeréer. waaw waaw. mais problème bi loolu loolu ban njëriñ la ci am sax ci combat bi. Hmm? dëkk Casamance dëkk Loro dëkk Bignona ban ban ban ban njëriñ la am ci combat bi. nit ki li nga doon bu ko bañ. waaw. li nga doon bu ko mës a bañ waaw ay doomu Casamance lañ muy man di Balla Gaye di Sa di Ama. kon sa Fatick ba ah. <laughs> waaw mais nag daal yaa neex. ay doomu mais bëri na Casamance bari nañ tamit. waaw mais waaw mais noonu la mais nit sa et ni da nga koy tiitaroo la nga doon gëm ko bëgg ko tiitaroo ko waaw doon dama ko gëm. Hmm. bëgg ko fonk ci sama côté yaay la mu doon gëm ko di ko tiitaroo. ah yóbbante woon na la de. lu ma yóbbu conférence de presse ba. mu ne ron la koy joxoon yóbbante waxuma jot nga ci am déet. mu ne mu ne naa la xamal ne am nga combat bu baax a baax a baax. waaye man xam nga yow am na yoo xam ne ay léeb ci man. dégg nga waaye nan ngay mën a waxee nit ki am nga combat yaag moom ba pare ngeen ah? ngeen daje dajewaat xanaa ki nga dajal kay ngay wax kay am ngeen combat wala. ah xëy na ci li jógee tax. waaye bàyyi ma waaye nga naa ma ci li mu jógee man nag ci li ma jógee nag. yow ci ndam ndam nga jógee. waaw léegi nag xanaa man man dajewu ma ak xanaa loolu jaralu ma man boo taxee naan ma ay ay boo demee nga ne ko am na combat kooku da nga koy wax ki nga musul laaleel mais koo xam ne seen yaram roofoo na ñaata yoon ñaari yoon ngeen war a daje ñetti yoon moom kay moo war a xam ne am na combat man musuma taxaw ne ne diw lii dafa am doole wala dafa am lii dafa am lii. Hmm. moom moo taxaw ne la dëgg dafa am doole dafa am kàttan. waaw ah. mën a bëri moom moo ko wax. Hmm. waaw amoon dañ ciy doole waat rek. moom la mu am. man man waxuma ne amul doole de. dama ne la moom moo mës a taxaw ne Lac de lépp loo gis ak vaar daf ci am moom moo taxaw ne Lac de Guiers dafa am doole mën na bëri yaa ngi dégg te li gën a jafe ci mbër loolu la am waaw kon jeex na li ci des nag ay détails la léegi loolu ñu amoon nag na jàpp dañ ci gën a dolliwaat déggoo ma de. maa la dégg. Ah, kon jeex na. est-ce que mën nañoo xaar ci xeex bu intense ci yow parce que. lépp ci moom lay dépendre ah. lépp ci moom lay dépendre. soo mu waxee ci moom lay dépendre mooy da nga ko nar a bàyyi mu diriger combat bi. diriger magam ma ni nii nii. Hmm. non diriger du ci am. kuy diriger. <laughs> toog leen ngeen seetaan ba le 4 avril. non waxal ak amateur yi. non gars yi duñ ci xam dara lépp surprise la. diriger nii nii mag sama diggante ak ma seet. mais soxla nañ ko dalal suñu xel de ñu teel a màcc parce na nag mën nañu yàlla dina bëre dina xeex dina daanu. te fu mu taxaw nga fekk ko fa. déggoo lu ma la wax. te mbax ko ko. Lamine da ngaa bëgg émission bi neex rek. ma loolu mu neex ci yow quoi nga bëgg émission bi neex fu na ne nii. waaw mais man xam nga li atafal yàggatul saa daal li ma dégg mooy fu mu fekk ma fekk ko fa timbax ko ko. bala 4 avril. la tamit kañ nga commencé jënd glace. yow xam nga ma jënd glace. sama kanam gi dafa kanamu ragal wala kanamu lan. déedéet kanamu gëree sama ragal ragal féetewu fa. kanamu gëree nga man ñi bu ñu amee benn duut bu ndaw ay ragal sama puus la man bëgguma ànd ak ragal ñi may su ma gisee benn fit bu ndaw loo xamante ne déplacé wu na sa sa biir kanam gi rek dama lay pousse damay xam ne yow mënuñoo ànd ma ak yow saa yi ragal féetewul sama côté. kon le cadre dinañ gis Lac 2. déggoo li ma la wax. penseur ñëwaat le penseur. da nga daan dóor ba ñu tuddee le penseur. dina xeex de. <laughs> beneen affaire Lac bu ma seetlu ci yow wàññi poids mel na nga wàññi poids. Ah. lu waral nga wàññi poids. kon dama wàññi nii. loolu nga mën jox de. Hmm. xaw ma nag est que du li waa ji mën a bëre ponkal moo tax nga wàññi poids pour gana a souple. non man pourtant de wàññiwuma poids de comme poids bi tax ñu wax wàññi de. ma nga laal rek. waaw ah, dama liggéey rek liggéey bee intense rek liggéey bu intense dalay dalay def noonu quoi. Mhm. combat bi ban combat la lay fàttali ci nga jot a bëre ban la la jox. sama combat yi gën li ci entraînement. daf mel loolu moom moo déplacé waat ñëwaat waaw. sa combat ak Yékini la la jox. waaw. est-ce que amul liggéey métti laa liggéey. moom est-ce que amul différence ak Yékini. non ci entraînement laa la wax. ok entraînement waxuma am na différence ak Yékini de maa ngi koy nuyu suñu grand bu baax boobu noonu di ko ñaanal yàlla da ko yàlla defal jàmm ndax itoon la ci làmb Yékini waaw. di ko hmm. nuyu en passage ah. Hmm. di bépp séeréer bàyyiwuma kenn. fan ak fan nga ci combat bi. fan ak fan dem. dem naa fépp fi nga xamante ne war na pour ñu dem fa rek. dem nga Badiana. Badiana dégg ma ne dem nañ fépp dañuy wut ñaan rek ah fu nit yàlla nekk rek comme ñu fa boole rek ñu dem fa fa suñ tànk mënul dem yaa ngi dégg suñuy nit yi nga xamante ne suñuy soppe lañ mooy ñu nga xam dañuy sonn ci ñun te gisuñu leen. xamula ku ñu fa mën a yeggal rek nañu fa yeggal. dem nga ci Yann Baas. waaw Yann Baas moom sama nit la sama gaañ la. mi ngi jàpp ci combat bi. bu baax sax. Hmm? waaw moom nit ku baax la nit ku gore la ñu ngi déggante yal na ko yàlla defal jàmm. ngeen ñaare bokk sëriñ kon. kan Yann Baas. ah waaw. waaw Baas moom sama grand la sama gaañ la sama xarit la. ma du dara moo tax ah, même bu fekkee ne du ñaan moo tax du dara moo tax ah, nit ku baax la. sincèrement parler nit ku baax nit ku dëggu nag mu ngi ci daal. Hmm. waaw mu ngi ci daal képp koo xamante ne yan baas dem na ci moom rek waaw. Eumeu Sène a ngi Eumeu Sène a ngi nii mu ngi nii mu ngi nii jàkkaarloo ak moom nga wax ak moom ci bët. Eumeu Sène lan laay wax ak moom te le 4 avril ñëw. ah waxal ak moom. aw dara lu may wax ak yow le 4 avril na nga waaj rek aw ma dara lu may wax moom. wax ko ko nee ko aw ma lu may wax ak yow. déggoo lu ma la dama la la Eumeu seen aw ma dara lu may wax ak yow lu la 4 avril yàlla may ñu dab lu rëy mais di nga xeex di nga bëre di nga daanu ci kàttanu yàlla déggoo ma de sànq ba léegi maa ngi koy répété. waaw na nag dafa mel ni instant bi da ngaa toog ci lu leer nañ nañ nañ c'est pas question de toog ci lu leer nañ mais lépp da ngay xëcc yàlla suñu borom teg. ah bu xëccee yàlla mu xëccee. am na ci droit. waaw bu ma xëccee suñu borom teg mu xëcc borom bi teg. yaa ngi dégg. Hmm. mais ku gën a liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg. waaw. <sighs> xam ku liggéey dëgg. ku gën a liggéey yàlla na am ndam. ku gën a sonn. <sighs> Eh, kon bu dee loolu ba xam ne yàlla dina am may. man kay dama laaj. waaw. sañ ngaa wax loolu ku gën a sonn yàlla nga am ndam. sañ naa ko te xam naa ne maa gën a sonn. combat bi paas sax yow Eumeu Sène xam naa ne dana la mere ñaari yoon. ci naan. ba ko daanee da nga ko doon kaañoo naan mu la loxo yi daal wow. kooku la Eumeu. non loolu c'est pas question ay dama wax loolu noonu ay mbalak la woon rek. waaw kaa ñoo nga ko doon def. ay mbalak la woon rek. moo tax dana xeex yow de. ka lay xeexal am foog mu xeex yow. Lamine nag kaay ma wax la benn fa da ngay tàngal sama neer yi fu nii. man nag moom xam naa ne ëmb foog mu xeex ak yow moom. ah baax na. ak lu mën a xew moom dina xeex ak ah, yow na ci dugg rek. ak laa yooyu yaa ngi sóor laam yi ba. Oh, saa ñaari yoon dañoo bëri ñaari yoon bëriwuñu benn yoon de ñaari yoon lañ bëri. nit am na ñetteel. y' a jamais deux sans trois. te waalo bañ na. déggoo lu ma la waalo moom bañ na mu mais y' a jamais deux sans trois danañ dajawaat troisième bi. ah booy ñaar yaa ko kii woon génne woon géej waay xaw ma nag am. te ci kàttanu yàlla ñu ngi koy ñaan suñu boroma ah, ñu génnewaat ko ndànk mu dem taxawaat à côté. Hmm? waaw maanaam géej waay daal doo dootoo kenn dugg fa di fa lëmbe. am na seen tey la dugg. incha allah. loolu am na solo combat bi pay la pour ñu nekkul leeral la loolu ñu dugg 3W point seen affiche point com ñu nekkul Sénégal. maanaam maanaam pay per view nga ah, ñu nekkul senegal kenn ci ñëpp jóg rek jàpp ci parce que tey euh, luy doxal làmb rek lañ bëgg parce que muy muy Sénégal di Europe ak fu mu mënti doon ah. xam nga dañoo war a jàppale ñi nga xamante ne tey xam nga mooy PPV nga xamante ne ci la ñuy dox ni daal. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. parce que luy doxal làmb rek moo ñu ñor ñun. Mm-hmm. di ñaan ñëpp ñu nekk Europe na ñëpp dugg fa teel a jënd seen i carte mën a seetaan bés bi. trois seen www.senaffiche.com. www.senaffiche.com. waaw kon jeex na wax nga ko. wax ko yow. 3. W. W. point senaffiche. point com. Mm-hmm. jeex na wasalaam. wala post afrique. gis nga yéen a compliqué. mais waaw ah, mais bay boobu. mais balaa nga jeexal. Mm-hmm. foog ma laaj la ñaata ñaata séance ngay def instant bi. instant bi deux. est-ce doon nga def ay quatre ak cinq. non man yooyu moom nekkuma ci moom. waaw. sincèrement par rapport quatre cinq loolu mooy lan. doy na waar de. non ñuy wax loolu dañuy wax leen neex dañuy wax lu lii neexal supporter wuy jéem a kii nit ñi. wala entraînement ay météo. waaw. bu entraînement yi jaaree yoon doo tal sax def ay quatre ki cinq waaye. instant pour ñu ngi ci dernier virage. yaa ngi contact bu baax. <laughs> loolu moo ñu war. di contact bu baax. Hmm. contact bu baax a baax a baax a baax. Hmm. ah gradé bu baax a baax a baax a baax incha allah. Eumeu Sène noo ko tuddee ci combat bi. nu ma ko tuddee. waaw ah. Eumeu Sène la tudd. kontaan naa ci yow. nu mu tudd nga Eumeu Sène la tudd. ah Eumeu Sène la tudd. turam dëggantaan lan la. <laughs> du la ko wax de si doo daal booy bi ni mu amee information ci man dafa garaaw mais di sant ah ma ñëw ah di sant ñi nga xamante ne tey dañuy sonn samay komba comme ni ma koy waxee rek damay revenir ñëwaat ci loolu mooy père Mouhamed Ali Ndiaye di kontaan ci moom. di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm. Mm-hmm. yàlla bàyyi ko njabootam ba li nga xamante ne moo ko tax a jóge France ba fii ñëw pour yéegali machine am machine de guerre kooku dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla guddal fanam. maanaam da ngaa recruter entraîneur bu jógee France. yaa ngi dégg cey lag. Euh, di di di sant tamit suñu per DJ. Mm-hmm. Euh, père Max ma naan père DJ sax. waaw ah. moom su ma ko waxee moom mooy loolu. Mm-hmm. waaw père Max ñu ngi koy sant di ko gërëm moom tam bàyyi yitteem yëpp bàyyi njabootam. Mm-hmm. kon donc jëmm jooj yàlla rek lañ ko mën a bàyyeel. seen mbébét ci man yàlla nañ ko yàlla defal di sant waa géej waaye ñëpp ma kenn ah ñëpp nañ mobiliser wu ñu préparer dem stade ci kàttanu yàlla ñaan yàlla suñu borom yàlla may ñu ndama ah. di waxaat waa cité bi nañ ma balaaq coono ñëw na bruit yi ñëwati na xamoo ko feebar xamoo ko feebarul maa ngi leen di ñoom ñëpp. Mm-hmm. di leen sàkku tamit ñaana ah. mm-hmm. képp kuy bëgg Lac de Guiers numéro 2. Mm-hmm. ak fépp foo mënti nekk ah ci àdduna. maa ngi lay sàkku ñaan ñu yor seen kurus di ñaan. na ñëpp téye seen kurus ñaan xam la di baalu àq ñëpp géejuwaay maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn mbëru géejuwaay yëpp a ah. mhm. képp ku ci am combat yàlla may la ndam. Mhm. yaa ngi dégg ñu ci amul komba yàlla may leen komba yaa ngi dégg ñu amay ndam di sant sama doom nday sama xarit waa écrit waalo ñëpp bàyyi ma kenn. Mhm. orka yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla yokk ko yaa ngi dégg macca yàlla may ko ndam ci barki Seydina Mohamed ah Alioune Seye 2 waxi nepp suñu grand Abdou Diouf maître bi muy suñu lépp di suñu kilifa. ikir waalo ñëpp bàyyiwuma kenn ah. ana liir yéen a ngi contact. waaw grand liiru moom moom suñu lépp damagoo ko non grand liiru moom moom moom moom ñu ngi root ci xam-xamam. Ah. xam nga loolu rek doy na. yaa ngi koy sagal rek liiru fu mu jëlee xam-xam yow it liiru déggoo naan mag mën naa bàyyi cim réew. Ah, waaw loolay grand liiru ah. <laughs> di sant mbaa di a anakam mooy laal. mbandikoo ba daa woo daa al di maayo combat soto côté nteni a seen mandinkoɓe dawoɗo a sérifol baynunkel jolal mandinkol sérif o bo dawoɗa mum kontomo aydarati mbeɗanolo aka alaninkel aliyen sok duwala ñin ko mbago amdani sérifol amdani sérifol mbaldanolo duwala baŋer sérifol mbaldanolo duwala jigen sor sérifol sérif o bo dawoɗa duniya kono mbaldal ali ala ta soba yomuta aliyen so duwala ñin ko mba kono magi santuwa écri walo bayuma ken ha ah. mm-hmm. mbarugueje wa yépp yalana yal defal jamm mamboy diawo maa ngi lay avertir waa Kolda laa lay booleel. sa parrain. waaw Mame Boye Diao. Hmm. na gaaw ñëw ci combat bi. waa Kolda nag sama Kolda la waa Gàmbi bàyyiwuma kenn Gàmbi képp koo xamante yaa ngi téye sa kurus yaa ngi dégg di nuyu waa kees waa kees di nuyu ñëpp képp ku nekk kees. Hmm. maa ngi lay sàkku ñaan. Gàmbi nag bàyyiwuma kenn. yal na yàlla def jàmm Gàmbi. géej waay nag bàyyiwuma kenn ah. jaajëf na ñëpp mobiliser waa. Ah. sama doom nday DJ rang muy gaaw.